rahmatullah mbokk internet yi nga xamante ni yéenay safo la SSP TV maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar bu dee yaa ngi doog a dugg ci chaîne bi maa ngi lay ñaan nga abonné pour di jot vidéo yu bees saa su nekk tey nag ma ñëw ak yéen ci li nga xamante ni moom mooy xew ci société bi fee yi nga xamante ni dafa doy waar trop trop trop trop ci réew mi nga xamante ni réew mu mel ni réew Sénégal nga xam ne buñ ko tuddee rek suñu xel du dem ku dul réew Serigne Touba réew El Hadj réew Cheikh Omar Foutiyou réew mi nga xam ne dañ koo bàkkee diine bàkkee ko lu baax tey bu ñu demee ba réew moom nga xamante ni boo tuddee Sénégal rek ñu bëri seen xel du dem ci li dul mbon ak ñaawteef lu waral loolu tey nekk nañ ci monde boo xam ne ni tey euh, boo xoolee li fi gën a dox moom moo nekk euh, média yi média yi tey boo xoolee lépp ñoom ñoo ko tënk euh, sunu ay doom tey lu ci ëpp seen temps ñu ngi koy passé ci internet ñu koy passé ci télévision ñu ngi koy passé ci biti ba tax na lépp loo xam ne ni ñu ngi koy def rek lu ci ëpp day dem ci internet bi day dem ci télévision yi ba tax na loolu noonu tey boo xoolee série yi nga xamante ni ñoom ñooy daw ci Sénégal la yu bari bari bari bari boo xoolee la plupart ay série yoo xamante nii tey euh, population bi wala jeune jeune tey ji tey ni euh, dañ leen di bàyyi xel euh, tey dafa am série boo xamante ni mi ngi daw Sénégal série bu bi ñuy wax infidel mu nekk benn série bu doy waar série boo xam ne xamante nii dafay jël li gën a bon ci Sénégal li gën a ñaaw ci société bi mu di ko teg di ko wan xale yu ndaw yi di ko wan jeunesse bi di ko wan askan wi tey bu ñu demee ba réew mu mel ni Sénégal di wone genre ñaawteef yooyu noonu ay xale yu jigéen yoo xamante ni dañuy def lu bon li gën a bon ay jëkk ay jigéen yoo xam ne dañuy am jëkkër ba pare am far ay góor yoo xam ne dañuy am jabar ba noppi di njaaloo di def lu bon tey bu ñu demee ba ñu ñuy tegal loolu noonu maanaam dafa mel ni ni que Sénégal li gën a bon li ñuy jël di ko jouer yaa quelque chose war nañu xoolaat suñu bopp bu baax a baax war nañu aussi mën a euh, takk suñu ndigg ba mu dëgër daal di jàmmaarloo ak lii nga xamante ni moom mooy xew pare dañu jug pour yàq suñu jeunesse dañu jug pare pour euh, pervertir suñu suñu suñu jeunes yi te loolu buñ ko bàyyee mu jàll rek dina dina jur lu doy waar doy waar ndax dañuy faral di wax naan gone tey ñooy doon mag yi réew mi ëllëg te bu fekkee suñu ndawi réew baaxul rek ëllëg dañuy am réew moo xamante ni réew mu nar a doy waar la ndax euh, bu ñu demee ba di ñu wan loo xamante ni. Euh, ñaawteef la mën nañ ko tuddee porno déguisé pornographie déguisé la parce que tey série boobu noonu nga xamante ni mooy infidèle nga xam ni waa Jamra dañ ko kaas ñu bari ñaawlu ko képp koo xam ne war ngay dox ci euh, diine wàllu diine war nga ko mën a ñaawlu képp koo xamante ni am nga baat ci même réew da ngay gis ni série bii dafay yàq yàq suñu jeunesse day yàq lu bari ci biir Sénégal war nga mën a jug ñaawlu série bii ndax li ñuy def du dëgg du yoon te jaaduwul est-ce que tey ñun Sénégal bu ñuy bàkkoo réewum cheikh euh, réewum cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul bu ñuy bàkkoo réewum maam Limaamu Laay war nañoo mën a bàyyi ñii di ñu yàqal tey série boobu noonu nga xamante ni moom moom la ñuy wax infidèle bu ñu demee ba waa Jamra kaas ko euh, ñu dem ba tey Sénéra euh, boo xoolee normalement série bi waruñu ko woon a teg mais lan lañ def dañu yokk heure bi au lieu de série bi di di daw mooy ay vingt et une heures yooyu vingt heures non léegi série bi teg leen ko au delà de vingt deux heures fekk xale yëpp tëdd série bi boo leen koy teg bu leen def interdit au moins de douze ans mais def leen interdit au moins de seize ans. yaa leen di seet loolu bu baax a baax est-ce que yéen a ngi xool loolu noonu ndax tey bu ñu nee bu ñu demee ba naan li ngeen di teg ci télé bi dee leen ci def interdit au moins de 16 ans kon ngeen xam ni xale waru ko seetaan bu ñu demee ba ne teg leen ko 22 heures kenn xam ne heure yooyu fekk xale yi tëdd nañ mais est-ce que loolu muccal na suñu njaboot parce que suñu njaboot yi ñu ngi passé seen temps yëpp ci internet bi tamit am na heure yoo xam ne rediffusion la te rediffusion bi d'habitude bëccëg lay doon kon loolu waruñu bàyyi mu jàll ñun sénégalais war nañu war nañu conscient ñu ubbi suñuy bët xippi suñuy bët xool ndax genre série yi sénégalais dañuy yàq société bi te waruñu bàyyi mu jàll waruñu toog di seetaan lii nii nii tey bu ñu xoolee benn publicité boo xamante ni xeesal la publicité xeesal la demoon na tax ba taxoon na waa Sénéra daal di tëj seen TV. te pour temps lii nii moo gën a garaaw loolu foofu ndax xeesal Sénégal ñëpp ñëpp ñëpp defuñu xeesaluñu mais tey mbon gii ñu ñuy wanal ñu ñuy wane ci télé bi ñaawteef bii ñuy wane ci télé bi tey mën na yàq bul xam ñaata xale la mën a yàq bul xam ñaata jeune la mën a influencer dara gënuma ci metti mooy euh, tey bu ñu demee bay jël tur bu sell bu mel ni maam jaara ku mel ni maam ku tudd maam jaara ah war a mën a yedd nit ñi war a mën a delloo ci nit ñi déedéet ay moromam ñoo ñëw di ko influencé ci biir série bi am na xale bu jigéen bu tudd maam jaar ay moroomam di ko influencé di ko xëcc ci mbon déedéet lii nii war nañ ci mën a xar suñu tànku tubay kaas ko xeex ci nag lu ñu yoon may ñu jël Sénéra bu demee tey ba ne seen TV teg leen série bi teg leen série bi mais bu leen ko teg benn heure bi loolu noonu dafay mel ni ni que ñi nekk ci ginnaaw série bi am nañ benn doole boo xam ni tey xeex ak ñoom sax dafay metti waaye ñun Sénégal dëkku li may wax sànq dëkku Serigne Touba dëkku élagement Hadj Malick waruñu nangu genre série yi nii di daw waruñu nangu ñuy yàqal suñu suñu jeunesse. maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar di leen bége euh, loolu laa indi woon tey pour présenter leen ko may jéggalu encore une fois bu baax baax ci kàddu yi bu dee ñagas na wala bu deekee kaddu yi li ma ci wax waruma koon wax ngeen xam ni rek nit rek laa nit moom dafay juum euh, maa leen di euh, ñaanal bu baax di leen bége encore une fois di wax ngeen ni abonné ci SSP TV.